acca waaw Boy Niang Tapha Tine ah combat waaw jaadu na kay Boy Niang Boy Niang Tapha jaadu na ñoom ñaar ñëpp ay champion gañ ay ay gaynde gañ quoi yee te combat boobu moom xam nga combat bu nar a neex nga nekk quoi xam nga di nga ñaanal suñu borom sàmm gën may gën jàmm ba jour combat ba ñu ñëw xam nga remplir seen contrat yee ku si nekk nag bañ si am benn jafe-jafe xam nga muy booy Niang di Tapha waaw. ay qualité Boy ñaa waa booy Niang moom nekk na mbër moo xamante ne nii du cuune quoi champion ga xam nga Boy Niang du cuune te booy bëreek moom faaw nga doon xam nga faaw nga faaw nga am tactique bu doy waar waaw sinon euh, mun na nga mun na nga juum ko si ay seconde waaw xam nga am na fit du ragal waaw te ñame na lu muy def quoi yee waaw moom booy ñaa waa tafaatin tamit xam nga pour daan tafaatin ah waaw pour mu daan tafaatin moom euh, booy ñaa na taxaw xam nga guerre ak moom parce que tafaatin moom boo ko bëggee boo ko bëggee boo ko bëggee juum ko faaw nga faaw nga xeex ak moom waaw mais boo bëggee waaw boo bëggee ñëw indi bëri kese kese kese kese waaw mooy boobu. Mhm. waaw faaw mu xeex ba buntu ubbeeku si sama gis-gis. waaw bu mu sóoraaga bu mu sóoraaga sax ay ay ay dóoram ay dóoru tafaatin yee bu mu sóoraaga ay dóoru tafaatin waaw mais tamit bëri la rek tafaatin moom macha allah mun na xeex xam nga loxo yi neex na yee. mais am na mbër yoo xamante ne faaw nga xeex ak ñoom ba pare doog leen mun a daan parce que ñu dañuy seetaan bëri quoi waaw non du programme ama bag de ndaama ga te euh, xeex naa ak moom daan ko loolu du programme waaw. parce que xam nga gars yi gars yi dañoo foog ne jàppante bi mooy gën a yomb si booy Niang xam nga gars yi loolu lañ foog gars yi dañoo foog ne. bu bi ne prime rek Boy Niang na daw ut fu mu jàpp quoi parce que ñu ngi sóoraale goxo xoy yee mais affaire yi mun na changer de parce que làmb ga dafa doy waar waaw mun na changer waaw mun nga jàpp mun nga yaakaar ne kii day ñëw dóor kii ba mu ba mu waaw waaw kooku ñëw dóor ko kooku ñëw duma ko waaw làmb rek kenn xamul yee parce que gars yi moom côté bi nga gën a mënee côté gi nga gën a fooree foofu nga ñooy jaar pour faible googa côté boobu noonu waaw waaw waaw Tapha Tine moom arbitre ne prive rek mu euh, ferme gardam waaw sama gis-gis ah laay wax waaw mu fermer gardam xam nga dox si kaw booy Niang waaw waaw mu fermer gardam rek xam nga dox si kaw Boy Niang jéem a jàppanteeg moom Tapha moom su ma ko doon digg moom xanaa fu fu mu fu mu jixaad ak Boy Niang tuuti nag ba jàpp ba mu dëgër waaw bu ko neexee moom war na mun parce que Tapha Tine day pagaake Tapha Tine yor na xeetu xeetu xeetu xeetu bëre boo xamante ne nii waaw mooy boobu parce que cër yi dafa jot quoi macha allah cër yi dafa jot quoi et boobu daal li nga si mën a dégg daal combat bu neex la waaw combat bu neex la. waaw mais combat bi nag lu ne mun na see ama ah, mais tamit xam nga fermer sa garde daal dox si kaw booy ñaa écran ko waaw écran ko daal nga xamante ne nii bu ne yaa ngeen daje nga daw jàpp moo xam da nga koy mbaar ko. yaa xam noo koy def mais xam naa ne daal bu ko bu ko bu buñ jàppantee daal dix bi mun na si jouer waaw mooy loolu waaw waaw. daanu moom benn mbër benn mbër bugg ko te daanu jigu benn mbër ku si nekk si ñoom ñaar boo daanoo mun na mun na mun na mun na am neneen nu mu demee waaw ku si nekk si ñoom ñaar bu daanoo tafaatin bu daanoo arrangé wu ko. yee parce que Tapha heure bii nii waroon na ko fekk mu nekk niveau boo xamante ne nii tey xam nga parce que nu mbër di mel nu mbër di toog xam nga qualité yëpp mu si moom waaw Tapha Tine vraiment xam nga euh, boo ñaar tamit xam nga dafa nekk si yoon bëgg a dem yoonam yee bëgg a bëgg a bëgg a ji ñi nekk si kaw yee kon ñoom ñaar ñëpp instant bii nii xam nga daanu daanu daanu waru leen quoi mais nag il faut kenn daanu ci yee mais l'essentiel daal ku si dem bay daanu daal na fekk nga sacrifié wu def li nga war a def lépp waaw lu mu laaj rek làmb ji nañ ko def waaw waaw waaw Modou Ama xam nga combat boobu tamit combat combat combat bu neex la quoi vraiment moodu Modou suñu grand la di ko nuyu au passage parcelle fii lañ dëkk parcelle la ñuy représenté xam nga di ko di ko di ko nuyu di ko bége di ko ñaanal suñu borom may ko jàmm xam nga di nuyu tamit ama xam nga di leen ñaanal ñoom ñëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk affaire bi ku si xew nga muy lu neex muy lu naqari ñu ñëpp ñooy dem taxawu yee kon di leen ñaanal jàmm ñoom ñaar ñëpp xam nga ay grand suñuy grand gañ xam nga di ñaanal wér ak fan ba bés bi xam nga suñu borom eh, xam nga yóbbu ñu fi si jàmm quoi yee mais di ñaanal suñu grand moodu xam nga yàlla may ko ndam ñun Parcelles lañ dëkk te raga féete day xañ a wërsëg waaw di ko ñaanal suñu borom may ko ndam si barke Seydina Mouhamed barke sëñ Babacar si bi mu yaakaar. yee Modou moom Modou moom vraiment kenn du ko wax waxu combat parce que moodu ndaanaan nga champion nga Modou combat bu nekk ak xeetu poids bi si indi ak xeetu bëri bi mu siy indi yee mais xam naa moodu Modou moodu Modou moodu Gris Bordeaux bu njëkk ba waxuma bii passé de mais moodu Gris Bordeaux bu njëkk ba. Modou googu mbër mbër mu du Ama Baldé ku mu ko indi doo doy non Modou Eumeu Sène laa bëgg a wax Modou Eumeu Sène bu njëkk ba waaw paa pa bi mu ko dóoree nii mu daanu waaw bu njëkk ba waaw bi njëkkee bëre noonu waaw Modou Modou état de forme boobu noonu waaw mbër bu mu ko indilaat di nga am programme waaw. non du wàññi sax da nga koy gis xam ne kii dafa dafa dafa dafa dafa am kàttan. combat boobu boo koy seetaanaat dangay xam ne Modou mii dafa am dafa dafa am kàttan combat boobu moom euh, indi na si doole indi na si jom xam nga indi si maanaam côté yëpp daf si pare quoi moo tax xam nga moo tax ma yóbbuwaat ko combat boobu maanaam combat bii nii mu jëm muy contre Ama yee na na na na na na na ko préparer comme combat boobu yee waaw. Mhm. noonoo du question de non du question de poids Modou. Modou bëri naa façon taay bu ne waaw Modou bëri naa façon taay bu ne yee mais nag xam nga euh, di ko ñaanal ndam di ko ñaana jàmm yee di ko ñaanal mbër mais mais boo bëggee dégg-dëgg Modou nekkatu ku ji conseil si làmb parce que ku bëre ba téye euh, couronne Modou nekku nekku nekku xam nga du du gan façon mbër bu ne bëri na ak moom Moodu am waaw mais Moodu instant bii nii nii nii nii man li ma koy ma koy xam nga li xamante ne daal moom laa koy wax si combat mook Ama mooy bu foowee combat bi bu muy dégg ay yaa mën doo moromam xam nga yaa ko mën doo moromam yaa ngi dégg combat bi na ko respecté na si pré na ko préparé comme ni mu daan préparé yeneen combat yi xam nga xam ne mbër ngay bëreel. champion ngay bëreelu bu mu si bàyyi dara yee parce que bu si bàyyi rek xamu ndax ke ke ke dina ko si dina dina dina ko dina ko kii si affaire yi yee mais bu mu waaw waaw bu mu si bàyyi dara yee man loo laa koy conseillé si combat bi yee mais du ma ko gëm loo ay yaa ko mën ak parce que làmb ga dafa doy waar waaw non xam nga Ama moom ku ne xam ne bu arbitre prix moom day ñëw waaw ah, Ama moom day ñëw waaw ah, léegi Modou na dajeek moom rek mu bañ ko xaar waaw ah, parce que kuy ñëw boo dajeek moom rek euh, impact bi kii bi mun na bañ a garaaw quoi yee mais boo ko xaaree rek mu ñëw mun na am neneen nu mu demee mais bu nee bëreet ñëw ñu daje ñoom ñaar combat bi mun na bañ a yàgg waaw waaw man ngoo gaa gis non bu ñu dajee moom du yàgg waaw bu ñu dajee moom ñoom ñaar Ama ne bëreet dox dox jëm si kaw Modou Modou dajeek moom ñu daje ñoom ñaar Ama Modou non combat boobu mënut yàgg yee mënut yàgg quoi parce que ñoom ñaar ñëpp instant bi ku si nekk waaw da nga da nga da sa morom waaw combat boobu moom mënut a yàgg waaw. xeex bi waa xeex du mun a ñàkk combat yëpp ay am xeex Tapha Tine Boy day am xeex. Euh, Modou Ama day am xeex combat yëpp ay am xeex waaw combat yi moom yëpp ay am xeex quoi waaw gars yi moom dinañ xeex moom. guerre guerre boo si. waaw. waaw mais waaw mais pourquoi pas ñaari ñaari ñaari xale yu góor yuy entraîné ah matin au soir di dóor ay saaku di boxe di dem bitim réew ah di gën a yokk sa force waaw mais kooku yow. mun nga dóor sa morom mu daanu ku si nekk mun nga dóor sa morom mu daanu yee mais man gëwuma làmb jooju noonu mujjee ay dóor mu daanu ay bëre la nar a mujjee quoi waaw man xalaatuma dóor mu daanu quoi combat boobu noonu Modou Ama moom xalaatuma si ay dóor mu daanu yee man li ma gëm mooy dañuy bëri ñoom ñaar ba kenn daanu waaw dañoo mun ne tànk Ama day bëre tànk Modou tamit day bëre tànk yee moo tax ma ne ma indi la combat Modou Eumeu bu njëkk ba waaw combat boobu moom combat boobu moom Modou xeetu xeetu xeetu résistance bi mu fa indi waaw mbër bu munti doon bu ko ko indi kay da ngay am programme waaw parce que combat boobu Modou dafa nekk si biir géew bi sax mu wóor la ne Modou dafa nekk si biir géew bi waaw. bu yàggee. waaw waaw waaw mais waaw mais waaw mais loolu moom xam nga loolu moom ay wax la rek combat moom. sawaay waay combat bu combat bu gaaw ak bu yàgg yëpp ah lamb daal dafa doy waar ñun mbër yi nekk si biir ñun xam nañ affaire yi des fois nga jàpp ne mbër mii bu combat bi yàggee si moom ngay métti nga fexe combat bi yàgg nag mu mujjee métti si yow waaw des fois tamit xam nga mu affaire bi dëpp des fois nga foog ne mbër mii combat bi gaaw mooy mooy mooy baax si moom xam nga nga ñëw fekk fa gu gën a teng waaw kon instant bii daal ku si nekk si ñoom ñaar waaw préparer rek waajal sa bopp xam nga yàgg say mbokk préparer wu naajement def gi dal sa xel parce que ñoom ñëpp ñoom ñaar ñëpp kenn nekkatu si koo xamante ne nii dañu lay wax nii nga war a defee wala nii parce que ay champion lañ ay ndaanaan lañ waaw. di nuyu tamit suma grand Garga mboose waaw suñu grand yi nga ne ñoo ñu jiite fii nii parcelle yee ñu ngeen di nuyu bu baax yee Garga Mbossé maa ngi koy nuyu kooku sama grand ga yee démb rek ñu ngi déggante man ak moom téléphone kooku nit ku baax la xam nga. combat mook Sa di ko si ñaana tamit xam nga taw féex di ko ñaana jàmm bu wér yee doomu parce ga xam nga euh, doomu doomu doomu doomu PA ga quoi yee sama grand garga ñu ngi koy nuyu combat bi mu jëm nii suñu borom defal ko si jàmm quoi yee may ko jàmm bu wér a wér waaw waaw waaw mais ama ama ama day bëri tànk ama gis naa Baga Diouf defe naa tànk bi nga jël waaw mais man bëre tànk Modou laa gën a wóoru quoi waaw combat am ak Eumeu Sène boobu noonu may wax <laughs> combat boobu noonu moo tax ma sumi ko sàppoo xam ne dafa mën a tànk moo dafa mun tànk dafa mun xeex Modou du cuune du mbër moo xamante ne nii danga nga koy fekk fii léegi-léegi saax saaxoo ko jëgee ko fi waaw kon euh, combat bi daal nañ si tey quoi ñoom ñaar ñëpp ku si nekk nanga bañ a xeeb sa morom bañ a xeeb sa adversaire bañ a ñàkk fayda combat bi sinon di nga si jógee gu nga xam gu nga mais ñoom xam nga ñoom ñëpp dañoo mbapat mooy comme ñun fu ñu jaar rek affaire dafa am armée dafa am bango maanaam comme euh, policiers yi ngay gis si tali beeg douane yeeg ah euh, de tenue yëpp xam nga dañoo jaar bango mbapat mi ñuy def nag mooy bango bango bi nag gis nga ku fa génn ah fu ñu laal seew da ngay bëre. waaw moo tax na xam nga affaire yi munu munu munu munu yomb quoi ñoom ñaar ñëpp ku si nekk si ñoom ñaar daal na nga préparé wu te xam ne xam nga euh, sa morom daal du bàyyi dara waaw ah combat bu neexal nar a nekk noonu Modou Ama daal incha allah bi waaw na si gars yi teey bu baax a baax a baax que ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ ay ndaanaan lañ yee mais nag di ñaana suñu grand Modou suñu borom defal ko jàmm xam nga bu baax a baax di ñaanal suñu grand garga tamit suñu borom dafa ko jàmm xam nga di nuyu Moussa Dioum suma grand xam nga vraiment écrit Moussa Dioum ngaa nekk mu ñuy teete depuis bi ñu nekkee ay booy ba yegg fi ñu yegg si tey waaw di ko ñaanal di xam nga di nuyu waa écrit Parcelles Mbogo yëpp eh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di nuyu waa Parcelles 1 ba 26 di nuyu suma waa dëkk waa Diofior xam nga di nuyu saag bi may entraîné di nuyu suma gars yi may entraîné ndoo yëpp waaw vraiment nuyu naa ñëpp sant naa ko gërëm naa ko di ñaan wax ji nga xamante ne yëpp wax nañ ko si émission bi buñ si waxee loo xamante ne nii tey xam nga euh, am na ñu muy déranger wala am na ñu métti xam nga ñoo ngi siy tuub di si jégalu waaw di ñaan jàmm di ñaan réew mi am jàmm si barki borom Touba di ñaan Magal Touba bii ñu jëm xam nga képp ku fa képp ku fa dem lu fa waay ñaan yàlla na ko suñu borom defal si barki Seydina Mouhamed waaw di wax gaa yi nag xam nga. ñu préparé wu bu baax a baax a baax di nuyu xam nga euh, mbëru gi gi maa ngi nuyu bu baax xam nga ñoom ordinateur Modou fay xam nga di nuyu ñoom xel John xam nga di nuyu ñoom Gaan Seck waaw di nuyu ñoom Caaka Faye di nuyu gaa yëpp xam nga di nuyu champion yëpp képp kuy takk euh, ngemb rek nekk mbëru simple xam nga ñu ngay nuyu bu baax a baax a baax baax di nuyu général Maguette sama copain di nuyu gaa yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu suma booy yi nekk Diofior yëpp. mbër yi nekk Diofior yëpp di takk ngemb maa ngi nuyu bu baax a baax di nuyu suma booy bii nii Issa xam nga di suma xarit di suma doomu ndey di suma lépp xam nga di ko nuyu waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ko waaw wasalaam noo nga demee